الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. بقيني جلو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نيلندي نيوفي كي راديو والفجر اف ام 99 في دكار نيلن ساتليني في جنيجتي تكنم جرميتي وقت تجي فنويري مني. Mujibisnavenkat Tram Sankar Society owns Pallavisnavenkat Tram Sankar Society Trace. Khamnaman Gani, Divinity, Somebody nominally bisa ko at iyan at waktan kang kambili. Madi senyari sa dengan minaging muy Abu Bakar Omar Nyang, ak Muhammad Mustafa Ahmed Ndaw ci machine bi nag ki leen koy jottali bu ngeen koy mën a dégg mooy désir kon xam ngeen ne suñu waxtaan wi wees na tàmbali woon nañ tuuti ak yéen ci yar wante xam nga yar la koy alaf waxee mooy soxna boo bari woon alal tey ba tabax ay ay njënd yu mag a mag bu fekkee ne amuloo soxna dañ naan diw day sampagul kër fekk nag yow tabax nga njëndi yoo xam ne yu mag la waaye ba amul soxna dañ naan sampagoo kër kon ma ngi mel ni eh, ci suñu uh, xam kon kër moo di soxna ndax soxna bu xasee am góor ki indi ko fi bu leen yàlla wërsëgee ngér wërsëgalee ngér muy doom dañuy dal di tàmbali sas lu ñuy tuddee njaboot mu di famille njaboot googu bu ko kenn ku nekk defee la ñuy dal di sos foofu lu ñuy tuddee ab dëkk dëkk boobu bu ñu bu ñu ko sasee keneen sos ko ñu am ay dëkk ay dëkk yu bari mu nekk benn gox benn département région wala lu demee ni ci noonu yooyu bu ñu paree bu ñu ko boolee day daal di nekk wenn xeet maanaam benn nation mu nekk wenn réew réew yooyu bu ñu leen boolee ñoom ñëpp nag ba ñu dajee mu nekk benn société mu nekk ay ay nation nation yooyu nag mooy société bi nga xam ne ci la doomu aadama di dund wante gis nga saal saal bu njëkk bi nga xam ne moom indi wayo bu ndaw bi ma njëkk a moo di ku góor ki ak ku jigéen ki njëkk naa tudd góor dana am ñum jaaxal waaye jarutoon muy jaaxal kenn ndax góor mooy cosaan yàlla bu muy bind nit kam njëkk bind góor la muy aadam tax na ba góor mooy cosaan gannaaw ga mu bind ci aadama ku jigéen muy xawa waaye gannaaw bi yàlla dafa def nag xawa moom moom jigéen mu nekk suuf xam nga suuf daanaka mooy cosaan ci gàncax njërt ak lépp luy sax ci suuf lay sax kuy tabax ci suuf ngay tabax kuy defar ci kaw suuf ngay tabax ba def ko kon jigéen moo di cosaan loolu moo tax euh, ñenn di wax ci kilifa yu mag di wax naan léegi lu ñuy tuddee mag jëm ca kanam muy développement du mën a am bu fekkee jigéen fekkewu ko waaye jigéen moomu nag boo bëggee mu développé la nga cay am itam màgg jëm ca kanam te te baax moom it dañ koy tànn tànn gi nag tey ci foofu rek laay yem tey ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon nañu ni ñuy tànnee soxna dafa ne woon ñeenti jigéen a am ci àddina nee na am na jigéen joo xam ne dafa rafet lool tabaarakalla kanam géeg bind beeg yëpp dafa rafet mu ne waaye am na jigéen joo xam ne ci culture ak aada yi nit ña askan waa rafet ñu ko tuddee rek ñu ne doomi diw ak diw la mu ne kooku askan woowu la am ñu ne am waaye am na jeneen jigéen joo xam ne moom mu ngi mel nii euh, ci wàllu euh, alal dafa am daal ku oomal la ku ko denc sax mu dimbale la waaye du wéeru ci sa kaw mu ne waaye am na jigéen ji ñeenteel mooy ki nga xam ne gis nañ ko daal mu am jikko yu rafet ak diine mu ne ñeenti jigéen yooyu moo am yonent bi ne buñ la talalee wane ñeenti jigéen yooyu nag nga talal sa loxo bëgg ci jàpp kenn pour tànn nee na sa loxo bu dalee ci kenn ku duul borom diini jàkk jikko yu rafet nee na booba juum loolu moo taxoon mu naan tunkaxul mara li arbain li arbain li maaliya li jamaaliya li nasabiya fasfar bi daati diini taribat yeddaak waxtu woo téye ku duul borom diini ja juum nga ba tarxiis ba sa loxo rëppeelu ci suuf kon sallallahu alayhi wa sallam aw kama qaal wan nañu na nañuy tànnee soxna pour mën ci am famille boo xam ne bu ñu tànn la kon Babacar ma dellu leen kàddu gi ngeen ñëw ci bataaxel jërëjëf Hadji Moustapha ñu ngi gërëm mbokk déglukat yi di leen ziyaare ci guddi àjjuma gi di doore laaj yi nag ci mbokk mi nee na papam dafa gaañu gannaaw dëj bi nag ay mbokkam jugee Banjul toog daal dugg ci benn néeg génn rek ku nekk ñu jox la ab enveloppe ne la lii la fi góor gi bàyyi séddale nañ ko xamuñ nag bàyyi moomu faatu woon ñaata la bàyyi xamuñ ko séddale xamuñ nag la séddale ñuy laaj ndax loolu yoon la wala déet. waaw euh, xam nga bu fekkee ne nañ ko séddale jaar na yoon day kon séddale ba jaar na yoon waaye juum nañ li tax ñu juum moo di ne mbiru ña ko bokk. dañ ko war a xam ndax gis nga wala fi di wax naan wut gaal ak yëboo dañ waroon a waxtaan ñu ne góor gi kat dem na lim bàyyi buy kër ñu ne nangam la buy pàkk ñu ne nangam la buy xaalis nangam la buy ak jur ñu ne nangam la buy urus ñu ne nangam la ngi door a jëm nag ci nuñ koy donnale loolu moo doon yoon waaye nit ki baayam du dee ñu ñëw rek nga jox ko amul ak naan ko góor gi dee na lii la fi bàyyi seddal nañ ko lii mooy ci sëb cër ñoom yoon may na leen ñu delluwaat ci yoon bañ seddale ba bu bañee séddale ba delloo si ko ñu toogaat suñu toogaatee bu boroom xam-xam yi ñëwee wala sëriñ ba ñëw wala xaw bi ñëw balaa ñoo séddale foog dinañ wax leen fi bàyyi lan la kon ci lañuy xam na li ñu séddalee jub na wala jubut kon daal ñoom yoon jon euh, jox na leen ñu bañ mbir mooma pour ñu tàmbaliwaat ko wala wax bisimilah rahmaani rahiim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kii mi ngi tudd Mamadou Diouf nekk ca marché ñetti maar ca Pikine wala Caaroy mu ne mi ci sëriñ ay nuyoom ak ci ngërëm ak ñaanam ak ñu koy jàppale Moustapha Ndaw Babacar ne ci émission bi mu ne dëgg-dëgg li mu bëgg ci émission waaye daal moo di yoreel nga njukkal amel eh, képp ku di jullit ci Sénégal yoreel na la njukkal ndax yow école bu mag nga boo xam ne yaa ngi leeralal diine lislaam képp ku mu yitteel mu ne nag am na ñaari laaj laaj bu njëkk bi mu ne dafa am ab jigéen boo xam ne jigéenam boo xam ne day séy ak tubaab nekku fi sax ma nga ànd ak tubaab dem séy waaye lépp doo xam ne moo ko moom moom ndaw sax moom cemmiñam lii la ko dénk mu yore ko mu ne muy laaj nag ndax ci lislaam war na yoreel ndaw sa alal war na koo dencal mu comme ay ab tubaab lay sidik waaw xam nga denc moom dénkaani daal ko wóolu la moom daal su fekkee ne wóolu na ko dénk na ko sañ na koo dencal waxuma sax mu seeg ab tubaab waaye ab tubaab ci bopp rek du indi ak bon ah, bu fekkoon def na sax du jullit loola it njégul ak bon gépp ak bon nit daal xattaa bu nekkoon ne sax ab yéefar la su la wóoloo dénk la rek sañ nga koo dencal mbir ma nekkul ci sañ a dencal xam nga fu mbir ma nekk mooy soo ko dencee na ko ñoŋal ba bu ko soxlaa bu jot ci ndax kóolëre daal yàlla dafa santaane ngi delloo ko wala ñaareelam mu ne moom ndaw suusu nag yëmut ci loolu moom moo leen di seen facture ndox facture courant lépp lu ñu soxla leen koy yónnee mu si ñoom ñu ko ci sharia wallahi nit kay luñ ko may xam nga euh, xool naa ko ci gannaaw ne ab waabul kas bi ci usul xamsa la mm-hmm. euh, nit ki liñ ko may lew na ko liñ ko sarax lew na lew na ko li mu doon na ci ki mu war a doon na lew na ko lu duxul loolu nag moo daganul comme moom kay moo jël may leen ko wala mu sarax leen ko dagan na leen loo am Cheikh Tidiane bi tey ci université bu saint bi nee na dañu am jumaa ju ju nekk foofu ci biir université bi waaye jumaa ji buñ demee ba vacances école day tëj te jumaa ji ndax kenn du fa nekk muy laaj nag jumaa ji lu mel ndax mën nañ fa julli ajjuma ndax dafa mës a jàng ci téere ñu wax ne ci charte yi ajjuma yi sax ca barab ba daf ca bokk comme kenn saxu fa nag ndax juma ji mën nañ fa julli aljuma waaw wax na dëgg ba sa boo gisee ñu naan bokk na ci sarti aljuma sax ca béréb ba moo doon amadi yi ngeen bañ mooy mbokk yooyu nga xam ne dañuy sàmm di toxu nga xam ne tey ñu def fii seen xayma bu gënaaw ëllëgee ñu dem ñu lañ doon wax ne dañu sañ di am juma ndax dañ fa saxul waaye fu mel ni université moom nga xam ne nit ñi dañ fay sax daanaka juróom ñeenti weer wala lu ko ëpp kon mu ngi mel ni nit ñi sax nañ fa waxtu yu ko nit ñi di gental bariwul tax na ba euh, walaw faradna ne fuqaaw yi ne nañu bokk na ci sàtti juma sax ñu di fa sax buñ ko waxoon te wax ji bu amoon sax hadith bu wéeroon sax nag euh, mbooloo mu toll ni université am juma juróom-ñeenti weer ñu di fa julli sharia bi leen ko mën a xañ mukk mukk mukk ndax ñaari weer wala ñetti weeri vacances wallahu alam kii mbokk mi moom itamit dafa laaj mu ne jumaa ngi joo xam ne dañoo toog bésu aljuma ba waxtu julli jot waxtu fees dell la te élimaan yi juróomi élimaan yi yëpp kenn teewul ca mbooloom xam naa am na benn taalu bu nekk ci mbooloom jumaa ji ñu daldi ne ko sëñ bi sëñ Babacar demal nga jiite nu demal nga jullil nu mu daldi jóg def benn xutba julli bu pare nag am ñuy laajte di wax ne ndax julli googu war naa wér wala warul wér comme waa jooju bokkutoon ci maamari élimaan yi ñu tànnoon. waaw euh, juróom ya waaye tànn nañ ko nag keroog. Mm-hmm. keroog moom mbooloo maa ko tànn ndax mbooloo ñooy tànn juma. Mm-hmm. xam nga élimaan ñi koy tànn mooy nit ku tabax jumaam ba sottal wala jàkkam kooku kum tànn rek ko kay élimaan kum neexul yaa seeti foo jullee. góor itam bu tabaxee jàkk wala mu yëlif jàkk sañ naa wax ni di wa fii limaan kur kooko doyul yaay seet euh, fan nga jëm ak euh, nooy def euh, mbooloom ay jullit bu ñu dajee ci benn ko ñoom it di dajalee ko def ay pexe bañ tabaxee leen jàkk ñoom it ñooy tànn seen ilimaan tànnoon nañ nag juróom yàlla dogal na juróom yëpp kenn nekku fi ñoom ñu tànn keroog ci saasa keneen mu jiite leen loolu dafa am lu mu leen di jàngal li mu leen di jàngal mooy yokk leen kat seen limab ilimaan yi ndax ndekkee juróom yi doyuñ ndax am des a ngi nii juróom yëpp dem nañ kon waa jooju ñu tànn keroog mën nañ koo bàyyi moom mu nekk ci ilimaan yi kon julli ga wér na julli gu baax la itam ndax bu fa kooku nekkutoon ñoom ñëpp keroog ci la ñuy julli wala waa ah, mbokk mu ñuy wax Ndey Jóob nee na lan mooy bokkaale yàlla dafa bëgg ci biir chara bi ngay joxee misaal ku def nangam ak nangam dafa bokkaale yàlla wax na dëgg de ndax bokkaale dafa yaatu lool te yéen ci ne moo gën a nëbbu korondong muy dox ci euh, lëndëm ak euh, suuf kon nag euh, bokkaale lu bari la wa ala kulli mën nañ ko tënk ci benn baat benn baat bi mooy sàkkal yàlla morom waxtu woo sàkkal yàlla moroom rek loolu bokkaale la loolu nag boo ko doon détaillé tey dina yaatu buñ ci joxee benn misaal par exemple su ma ne woon na géñ naa ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam bokkaale naa ndax ngéñ dañ ne woon ci yàlla rek lañ koy def yàlla mi nga xam ne aw turam rek ci lañu waroon a géñ wala ci ay melokaanam jël naa sayyidina alayhi salaatu moom ci boppam du turu yàlla ci zahir lay wax moom ci boppam du melokaanu yàlla kon boo géñee ci moom shirku nga ndax bokkaale nga ko ak yàlla gis nga Omar ibn al-Khattab ne na benn mos wax yonent bi bi abi anta ya rasulullah yu mun a yonent bi ne Omar man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut mu ne géñ naa ci sama baay xam nga moom nit moom foogoon na ne nit ki daal foogoon na ne gannaaw yàlla bàyyam a gën a foor fi suñ magum daara na wax ne nit ku ne da nga yaakaar ne bàyyi rek ay góor kon nag kon nit ki moom bàyyam a gën a foor ci moom bu fekkee nit na loolu moo taxoon waa ji ne géñ ci sama baay euh, ñu ne ko yonent bi ne Omar kuy géñe ci géñul ci yàlla wala nga noppi kon géñ ci lu dul yàlla xeet la ci bokkaale am na sax ay yu ndaw ndawaan yoo xam ne dañ koy euh, jélale masalan Babacar bu fekkoon tey pakk bi daf laa fëkk rek nga ne delf ci pas-pas pakk bi dal di ne Sayyiduna Muhammad maanaam yaa ngi ñaan kon xettaliku ci ku duhut yàlla loolu itam ci xeeti shirku la wala boobu nga demoon di rendi tey nga ren doon rendi dara tey dal di ne waxoo bismillah xanaa ne ci barkeb sayiduna muhammad loola non seulement bokkaale nga mais la nga doon rendi sharia daf ne ñedd na xam nga dafa yaatu lool waxtu woo xamee ne daal li nga sukkandiku duhut yàlla waxtu woo xam ne li ngay yàlla waxtu woo xam ne li ngay rendee di ci génne bakkan du yàlla waxtu woo xam ne ki ngay jaamu du yàlla loola nag moo gën a fés ndax jaamu ko du yàlla sax yi moom daanaka yombut yombul ndax euh, même yéefar yi sax xam nañ ne yàlla mooy yàlla waaye ñàkk wóolu du ñàkk wóolu yàlla Eh, jël itam ku dul yàlla mu dox sa digg ak yàlla nga yaakaar ne moo lay jegeel yàlla moom itam ci shirku la ndax gis nga yéefar yi sax bi ñu leen laajee ndax xëram yi ngeen di jaamu yàlla la dañ ne déedéet xam ne du yàlla maa naabuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ñun kay dañuy jaamu xëram yi pour ñu jottali ñu ci yàlla waaye xam ne du yàlla kon nag jël la dugub yàlla mu jottali li ci yàlla te loola du yàlla loolu itam ci xeetu shirku yi la dafa yaatu daal Babacar wallahu alam ci mbokk mi mu ne gannaaw bu mu la nuyoo muy jëmale ci yow ay cantaan yoo xam ne jëmee ci xolam la mu ne ndax li ngay leeral ak biral ci lislaam waaye am na ñaari laaj laaj bu njëkk bi mu ne jigéen na yoo xam ne dafa am doom doom ji juddu naag bakkan ba dund ay fan waaye bala ñu ko jot a tudd xale ba faatu na mu ne ndax xale boobu war nañu koo sang ndax war nañu koo julli itam waaw nañu ko sang nañu ko sang nañu ko jullee nañu ko suul li ko waral mooy juddu na ak bakkan tàkku na dund na ay fan nekk na nit su boobaa nag euh, duwaawu tëfli la dañuy ñaanal gune duñ ko ñaanal yërmande duñ ko ñaanal njëggal waaye dañuy ñaan yàlla yégal ko ci yarub euh, suñ maam Ibrahim dañuy ñaan itam yàlla def ko mu di ab dawal bu yiw ñeel ay way juram noonu lañ koy ñaanale xanaa liñ ko def rek mooy tudd moom jaru ko am na ñoo xam ne doom bu juddoo rek ñoom dañ koy dal di sàkk lu tur euh, donte kiwul su fekkee ne demoon na ba déclaré ba am aw tur mu dee it mu xam ne kon dee na rek waaye toog nag direy xar di tudd di yëgle loolu it du mm, du ca war bu fekkee fekkoon na mu jënd xar mi nag ba pare yàlla euh, xiir ku ci ne na ko rey daal lekk ko sarax ku njaboot gi wala sarax ku yeneen njaboot booba itam loola lu baax la kon ne laaju ñaareel bi daanaka dafa mel ni tontuwaale nga ko sax ndax dafa wax ne ndax kooku nga xam ne nag moom jotu bésub tuddam mu far faatu ndax obligatoire dañ ko war a reyal xar wala déet. déedéet moom kay waaye nag su ko defee su ko defee nag reyalu ko doom jëddee ndax bés bi ko doon tudd euh, jotagul su ko neexee sax nag mu ne moom moom moom la ko reyal moom la koy tudd waaye jot mu koy def ndax dee na ndax dafa maye woon ne nit ki mën na bu doom juddoo mu tudd ko keroog. wala mu bàyyi ba bes bi dellu si juróom-ñaareelu fan ba wala juróom-ñetti fan ya walla boo fukki fan ya ak ñeent wala ñaar fukki fan ya ak benn danañ ba amul xar sax waxtu mu amee xar rek eh, kullu mawludin marhumin bi aqiqati yi waxtu mu ko amee rek mu dal di ko reyal tudde moomale waaye bu ko rek mu ko def sarax wala mu sarax ko waa kër gi jarul mu koy def ay xubbeen ndax kooku dem na ba pare wala wàllam ak ah, Jibril Meng mu ne mi ngi lay nuyu yaag ñi lay jàppale ci liggéey bi ak Sidi Lamine gannaaw loolu nag nee na ñetti laaj la am bi jiitu mu ne ci tànn miis dafa am ah, léeg-léeg ñuy dajale ay xale yu jigéen di seet ki ci gën a rafet nee na ña ko teewee nag am nañu àqu kenn ku ci nekk tànn sa bi la doy ne bii mooy gañe ah bu kooku gañee nag amaat na lët ñu defaat beneen lëtëre yéen ñi waxoon loolu te mu tombeek li ngeen waxoon am jox leen bii màkk ngeen aju nee na ndax aj googu lislaam nangu na ko wala déet waaw xam nga Babacar mbir bu yàqoo ci cosaan la doo ko mën a wutal atte baatab tànn mees moom la euh, miis moom la sharia xamut ndax euh, dafa daganut bëgguma sax di wax loo xam ne day nuru ne da ngay attaqué am mbooloo wala institution waaye lislaam nag moom amul kersi ci dara buñ ko laajee fokk na wax rek li lislaam wax ci loolu sharia moo xamut loolu amul ci alquran amul ci sunn amul ci fiq gisuñ ko ci téere yi ndax jigéen koo xam ne dañ ko doon di ko sang ñu neen sangu yaramam xar kanam bi rek war a génn ak cati ndëggoom nga xam ne bu doon julli sax euh, sujjóot ndëggoom yi feeñee julli gi yàqu ku mel noonu kuñ dem ba naan baatam sax warul di génn ndax awra la kuñ dem ba ne buy liqaam sax na suufeel nodd waru ko ndax day jëm ca kaw kuñ dem ko kuñ wax ne sax bu jihaar jotee su demee baax na waaye kenn du ko obligé muy def jihaar moom jigéen xam nga kooku nag nga nga summi ko daanaka def ko yaram mu neen def ko ci mbooloo adduna si yëpp di ko di ko seetaan mu dox dem dox dikkaat wane boor bi wane boor bi di di doomu julit te wax ne julit la tey jigéen loola moom dafa daganut comme mbir moomu daganut nag lépp lu ciy jógee mënatuñ cee mënatuñ ko sàkkal benn atte ndax loolu ñuy def sharia daf koo xamul daf ko dàq wallahu alam dese yu mu ne téléphone baa ngi eh, woote waaw. allo. naam. naa def. maa ngi sant yàlla. alhamdulilah. man Samba Korka Diallo laa tudd. Samba Korka Diallo jàmm nga am. waaw jàmm rek kay. alhamdulilah maa ngi dëgg euh, Wakam laa dëkk. waaw kay. mais euh, Fuuta laa yaroo daal. waaw kay foofu laa la foofu laa magoo. Mm-hmm. bon am na benn laaj bi may laaj. Mm-hmm. dañu wax ni. Mm. xale yi. Mm. waruñu def ay yenn fonds yi daal. Mm. parce ñun suñu dëkk. dafa am nga xam ne daal ñu ngi foofu. xale yi ñu ngi doon fond di def lépp daal di di tëgg ndend yi def lépp mais dafa am te duñu bàyyi waxtu nag waxtu bu mu jor rek dañuy julli ji def lépp mais dafa dem bu mu yàgg am na benn ñu nekk foofu daal ñu ne ñu affaire yooyu dañ ko war a bàyyi war ñu ko def te tere nañu xale yi lu ñu doon fond rek tere nañu leen daal te xale yi ñoom vraiment dañu bëggoon fond def lépp daal mais nanguñu paa yi daal nangu ñu ko def. Hmm. loolu laa laaj lan la seen sari sariya wax daal. waaw loolu loolu mën ñu wax daal. waaw ah. loolu la sariya waxoon. gune hmm. yee kenn du leen tere fo. waaw ah. waaye nañu fexe ba fo mi ñuy po mi ñuy toog. waaw ah. na fekk ay ay góor yi neen ñoo fa nekk. wala ay jigéen yi neen ñoo fa nekk. waaw du ñu boole góor ña ak jigéen ña. waaw nañu fexe ba itam. du am am tëgg ak am pecc moo xam ne dafay déranger mag ñi tere nit ñuy jullee julli tere nit ñi am jam am jam wala ñuy noppaloo noppalu ay gune yu góor yi kese daal bu ñu demee ci àll ba beru seen seen seen seen seen béréb eh. di foof di fook tëbëkk dal te duñ bàyyi waxtu sharia du leen wax dara ah. waaye buñ ci bëggee boole nag ay jigéen ñuy fecc ka tëgg bu boobaa sharia dafay bañ loola waaw ah, euh, dafa am lu wax hmm. loolu moo tere taw ñi daal léegi dafa wàññeeku daal. ah man nag taw bi dafa wàññeeku. man nag ko indi de comme yàlla daf ne su ngeen bëree bàkkaar ma téye samay xéewal. waaw ah. kon de bu ñu defee lu lu daganul su bëree. ah, ah mën naa téye taw de. ah pour pourtant bu njëkk bi. Hmm. mu ngi doon def lépp mais mu ngi doon taw bu baax. waaw loolu nag mbirum yàlla dama la wax daal ne. Ah. comme daal ay bàkkaar. dafay téye ab taw. kon daal. waaw mën na nekk kon de bu ñu bëree. waaw def lu ñuy aaye. waaw loolu mën naa téye taw. waaw ndax bi yàlla wax ne istaghfiru rabbakum. waaw innahu kaana ghaffaaran. waaw yursili samaa aleykum midraar. na ngeen jéggalu yàlla. Eh, bu ngeen jéggaloo yàlla. dana bàyyi asamaan mu tawal leen kon li muy tekki mooy bu ngeen defee bàkkaar lu leen mën na téye asamaanam. xam nga bu doon yéefar la. kenn du wax ak ñoom loolu waaye comme ñun ñoo wax ne jullit lañ. boo xasee wax ne jullit nga Ah, loolu nga engagé nag dañ ko war a respecté nag topp ko nag. waaw loolu la. Euh, merci waaw kay jàll. maa ngi lay gërëm jërëjëf. merci allah wala. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Moustapha. waaw. ah ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf barakallah. ñu ngi lay woo fii man El Hadj ñoom si poste kër yi. ci télécentre Ousmane Traoré ak El Hadj Touré. waaw kay ñu ngi lay gërëm di la fàttaliku ne te conférence yi nga daan def ci Saloum. waaw ci artisan bi na Saba. ak Madiou Madiou Saba waaw. waaye maa ngi yooyu mm-hmm. ñu ngi ciy kontaan. dafa am lu ñuy loo xam ne dafa nekk ci si réew mi fii nekk ci si aada ci mbiru sëy. Mm-hmm. Euh, bi maanaam ñaar ñu yéen sëy. Mm-hmm. seen sëy dem na. benn xarit. ndaw si ñu gën a dem na kër baayam. toppatoo nañ ba tàyyi. ndaw si nangu la léegi nag baay yi nga xam ne fii nii moo ko mayoon ndaw si. waxtaan naa ku góor ki. ki mu ko mayoon. Hmm. ba ne ko ci misaal su dee juróomi junni la ci mu ne ko juróomi junni yi ngi ci defoon hmm. ndaw si dana la ko jox ci maanaam xulxom hmm. ci maanaam sëy yi war a tas léegi nag góor gi ñoom ci jamono boobu noonu amuñu juróomi junni yi ñu ko war a jox waaye ci kaw loolu léegi fi ñu ne li ñu yëkkati junne jox ko bu sëy bi dog jëkkër ji ne nag moom fi mu ne gannaaw mën junne juróomi junne global moom du nangoo jël ñaari junne yooyu noonu bu sëy bi tas léegi nag su fekkee ci distance boobu ndaw si wax nañ ko na ko dafay toog bu jëkkër bu ndaw si amee jëkkër moo ñu ko distance hmm. boobu noonu su fekkee góor gi dafa faatu wala jigéen gi faatu hmm. ndax su fekkee góor gi dafa jëkk a faatu jigéen gi dana ko ténj hmm. wala bu dee moom xam nañ ne bor la fi baax waaw su fekkee léegi nag ndaw si nag léegi góor gi dafa jëkk dee te nangu war góor gi moom jëkk nangu waroon a la nangu waroon a joxe jël dogloo bi feneen léegi nañ ko jox juróomi gi ne global ndax boobaa léegi lan la ci wax waaw wax nga dëgg euh, conférence yooyu ma doon def ci seen gox yi am nga sa mbokk moomu moo ko daan sabab muy oustaz Aliou Touré nga neel ma ko waaw moom moo ko daan toppatoo. waaw waaw kontaan nañu euh, gannaaw loolu. waaw euh, sëy boobu la. waaw xam nga sumeeku. waaw parce que moo xam ne. Mm. Malikiye dañ fay li mënatu ci am sëy ba day jeex. waaw li Malikiye wax. waaw ñi ca des nag wax ne am parce la. waaw alaa kulli mm. waaye day day am lu ñu yëkkati. Ah. lu góor gi yëkkati. lu ah. jigéen yëkkati jox ko góor gi mu jël ko. Ah. loola nag. duñ ca charte. lam ko joxoon man naa mën na koo mat. mën na ko ëpp. mën na ko yées. mën na ko yées mooy. bu ndaw si bëggee summeeku góor gi bëgg caa génn. lu mu ko jox bu yéesee la mu ko joxoon it summeekoo na. su fekkee nag. daf ko joxoon euh, lu toll ni la mu ko joxoon rek. kon summeekoo na. bu ndaw si bëggee summeeku góor ci bañ ah. ndaw si nangu sax yokk ca ah. te tas ah. ba it jox ko lépp ba tey summeeku la waaye nag comme góor gi nangoo gula jël dara nag kon li muy tekki mooy summeeku amagul bu summeeku amagul nag parce que amagul kon nag ab sëy tasagul kon dee bu amee ci ñaari boor yi jabar ju dee la wala jëkkër ju dee ku lawaale naam naam asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah Moustapha nafsu man la Sarr maanaam. waaw Sarr noonu def waay. ah Sarr ah, ban maanaam nga ni tey. Ah, wax nga dëgg kay. Mhm. Eh, dañ maa yóbbante ñaari yóbbante. waaw d'accord ñaari laaj. Mhm. waaye benn maanaa bi moom mu ngi ci alxuraan. waaw eh, sama benn euh, papa. Mhm. dafay ñëw léegi na ma bu ma la jotee naa la laaj ne. ku wax euh, ñaari jabar dem leen xaraamal naa leen. ku wax ñaari jabaram ne dem leen xaraamal naa leen. waaw lan la ci lislaam wax. waaw boobu moom laa bëgg nga tontu ma. waaw gis nga bu fekkoon ne tey euh, fekku Malick la ñuy ñëpp ñu koy atte woon uh-huh. ñoom dañuy wax ne ku wax limraati yi anti alayya dog na batt na loolu moo nekk ci risaala xalil loolu la indi uh-huh. boo demee ci fiqu malik yëpp ñoom loolu la ñuy indi xataa mu dawana bu fekkee nag ci meneen weer la mu dul malik yi uh-huh. ñoom dañuy ne loolu duhul duhul waxuma sax mu xaraam waaye ñoom dañu sax duhul pase ñoom nag du pase parce que ñoom li ñu jàpp moo di fase léegi euh, boo koy def uh-huh. da ngay koy waxee ni ko yàlla waxee dañ ne parce que ñaar la uh-huh. sarixu talaaq uh-huh. ak kinaaya ñu ne sarixu talaaq mooy nga waxee ni yàlla waxee lu dul loolu kinaaya la te yàlla ñetti parce que la wax al firaaqu wa talaaqu wa saraaxu xam nga sarixuhunna am na fariq aw fariquhunna am na taliquhunna am na kon ñett yooyu la yàlla jël ñu ne nag kon ku waxee lu dul ni yàlla wax la nga wax dàkkante la dañ lay laaj loo ci jublu soo ne pase la muy pase ñooñu loolu la ñu wax loolu moo tax ñu ne ku wax ne sa jabar xaraam la naa la uh-huh. ñu ne dul pase parce que yàlla pasem xaraam la ñëwut ci alquran uh-huh. loolu mooy benn atte bi ñenn ñi dañoo wax ni te li may wax notamment boo seetoon Tirmisi yi dañ ko ca fekk soo seetoon euh, tafsir waadix itam uh-huh. ca suratu talaaq da nga ca fekk ñaari riwaay yooyu la ñu ne yonente yaa ayyuhan nabi hmm. lima tuharrimu ما صلى الله لك إلى آخره نار رواية مجبود بار قطني لا بل بكر ميزي لا بينه نيو نم نيو وخني نيب وخ آه، آه، جبران نك حرام لنا لا ده حرام لده فني كتير سلوه يا الله ماي حرام لا ماي ده يوم نو حرام لا ماي مني حرام لنا صوب تدك سو حرام ده دون حرام يبتمن ده سو حرام لا المحر المحرم والمحلل آه. هو الله تبارك وتعالى نعم. نيو كنا boo demee ci fiqu sunna mu ne ku wax jabaram ne xaraam li naa la mu ne foofu yaminu ñu kaffiruha mu ne kooku mu ngi mel ni ngiñ bu borom teñu kafaaratul yamin rek moo ko war kon da koy kafaara kon nag bu dëggee ci yeneen ngeen day def kafaaratul yamin yaakaar naa mooy fi kafaaratul itaamu assurat assurat masakin mu nga loolu mooy kafaara ngéej su ko defee rek ngéej la la kafaara jabaram fasewut mu daal di téye jabaram waaw wala mu war ñetti fan waaw loolu mooy kafaaratul yemin waaw noonu lay def beneen bi wala waalam waaw euh, sama benn xarit hmm. moo ne ma dafa yàlla da ko mayoon soxna hmm. mu fasee soxna si mhm. bi soxna si dem dafa ñu bàlle ëmb bu ndaw mhm. iddaam jeexul ñu may ko beneen jëkkër mhm. bi mu ànd ak jëkkër jooju yàggul tuuti mu am doom léegi bi ko bi mu amee doom moom nangu leen ne comme iddaam jeexul woon kon doom jooju doomam la mu tudd doomam léegi muy laaj ndax mën na jëlaat ndaw si takkaat ko wala déet waaw euh, ndax moom jabaram a ngi door a cekkeeku waaw mu ngi door a cekkeeku mu amee doom kii ki jaar ci diggante bi moom la moom moo takkutoon takkam moo takkuwutoon wala moom sharia koy teg njuum teeg dinaag yu demee ni ci noonu waaye moom jabaram mu ngi door a tas bii mu amee doom su boobaa su ko bëggaatee te fekk boobu boobu lañ mës a fase hmm. kon day indiwaat ak can yebal ay nit. dëgg la ñu xub ba takkaat may ko ko. dëgg la loolu la. dëgg la wallaahi la. Euh, tey nag. Hmm. maanaa bi ma andi. waaw maanaa waaw mooy maa ngi koy jëlee ci li nga xam ne ñoom ñooy atte. waaw képp kuy atte. Hmm. Euh, na nga roy ci yonent yàlla Daawuda mii. Hmm. ndaxte am na lu mu juume woon yaakaar naa nag ci sama xam-xam bu gàtt. waaw loolu la mooy bi ko ñaari gaay yi ñëwee. kenn ki ne ko inna haaza axi lahu tisoon wa tisoona naajatan. ila axiril aaya. Euh, bi mu demee ba fàttaliku. nee na. wa zanna daawudu mhm. eh, annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa xarra raaki'an wa anaaba mhm. loolu daal laa bëggoon tey ñu waxtaane ko mhm. képp kuy attewoo na nga xam ne na nga attewoo ci ngir yàlla te bul attewoo ci sa coobare loolu daal laa ko insha allah waaw xam nga asrar maana ah, aaya boobu ñu bari dañ ciy juum dëgg la eh, ki ñu daan jàngal ñu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu daan wax ne bu fi agsi wax ne jalal dëgg nga ci dëgg mu jalal day dëgg nga ci ndax li nga xam ne moo ñëw ci jalaal maanaam xaasi ah. eh, ci jalaale yi ah. ñoom dañoo wax ci qissa Daawuda ay njumte ah, ndax dañuy wax ne Daawuda hmm. dafa amoon benn saxaabaam wala ku ko toppoon hmm. koo xam ne dafa amoon hmm. jabar ju rafet fekk Daawuda ngi am juróom-ñeent fukki jabar ak eh, juróom-ñeent Daawuda yebal waa ji ci xare pour mu dee waa ji deewut ñu yebal ko ci xare deewut mu di ko yebal ci ay danger rek waa ji nag far dee ci benn ci xare yooyu moom mu ne ba mu ñëwee rek Daawuda di jël jabar ja ba daaw di jëlee jabar ja gannaaw ga euh, ñu ne ay ay malaaka dikkal ko euh, malaaka yi dikkee fekk ko ba wal di ko laaj ne ko ñun léegi dañoo warante dañoo xuloo ndax dañoo boole woon te ndaxte léegi kii am na juróom-ñeent fukk juróom-ñeent man benn la am léegi nag mu bëgg maa not bëgg ma jox ko sama benn ba mu mottalee téeméer daaw daneen waaw lu bari ci ñuy boole day ñenn ña dañuy tooñ euh, ña ca des kon tooñ na la kon nag tooñale ci laaj bi mu laaj sa benn bi mottalee ko téeméer mm-hmm. te amamul lu mooy benn ñu ne ba malaaka yi dëddeen mm-hmm. eh, Daawuda xalaat nag ni ñii kat man la ñuy wax ndax naa yebal waajur mu dee mm-hmm. mu jël jabaram mottalee ko téeméer xam nga loolu loolu mooy xissa bi loolu lañ gën tëll loolu loolu ngënte la nag doxewul noonu de. déet déet. Ah, ndaxte dafa am li ñu ko xam. saa dégg ñu tuuti. doxewul noonu. Ah. waaw dama ngay dégg ma wax la ni mu doxee. balaa ñu ca teg leen. xam nga lu mu doxee woonam. Ah. xam nga ab yonent. Hmm. yonent yi maasumuuna lañ. ñu jàng tawhid xam nañ. loolu dëgg la ismatul ambiya. mu ngi mel ni manto. Hmm. benn député wala benn ministre doo mënoo ko jël rek tëj ko ndax dafa am manto bu mu sol. dëgg la boo koy aar. yonent yi dañu am tamit isma. seen seen isma boobu nag moo leen di musal ba duñu def aw ñaawteef bu toll noonu ah. loolu duñ ko def nag kooku foofu ngay déparé pour nga dëkk sa boobu la xam ne jalaal wala gaañoo ñu juum beneen bi moo di ne piste mm-hmm. ba lañ ci nettali mm-hmm. ne daawatu di fa jógee ñëw ci armée lu waajo ah. dafa jooy ah. ay ronkoñ mm. ba ronkoñ ya sotteeku ba tooy mm. ba ab jëmb sax fa mm. loolu itam xam nga science sax dàq na ko xam nga ronkoñ dafa saf xorom <laughs> lu mu tooyal sax xam nga dootu sax dootu sax ñax xam nga loolu itam lu daanaka waxu caaxaan saxaafa la wax yu xaw a kii xam nga lu kaw xam nga malaaka uh-huh. du yéeg nit a yéeg uh-huh. kon nag ñu dikkal daawuda duñ malaaka nit la xam nga alquran dafa nekk tasawurul mihraab uh-huh. malaaka moom bu yàgg si day topp rek nekk fi waaye def tasawur kay di yéeg ci peelu kon ay nit ñoo ko dikkal ah, ah. xam nga lu tax ñu dikkal ko hmm. dafa nekkoon ci biti di àtte ba àtte ba jeex mu hmm. dem nag ci may xaba pour jaamu yàlla hmm. muy waxtu woo xam ne kenn du ko fekk foofu la ah, ñii nag yéen ñoom fekk wàcc na ba tëj ñii yéen daal di cippeelu fekk ko bu ñëwee nag ñu tiital ko ndax li tax ñu tiital ko moom dafa yaakaar ñi ñu ñëw la pour war ko agressé war a dal ci kawam te Daawuda xam ne xeexkat la woon boo fàttalee ni mu ni mu rayee woon ni mu rayee woon jàllute nga xam ne xeexkat la ah. ñu dee jël position nag pour bëgg jëflante ak ñooñu ah. pour xeex ak ñoom ñëw ne ko bul tiit ñun dañoo xuloo rek lu simple dañuy atte lu daal di wax wax wax wax ñaari sàmm la woon rek léegi nag mu atte leen ne ñu bari ñuy boolee day leen ñu tooñante ah. kon kii moo la tooñ dañ leen atte bañ dem nag hmm. Daawuda dal di xalaat nag dal di jéggalu boromam ci lim naroon a dal ci kaw ñooñu jëflanteeg ñoom loolu la xalaat ba jéggalu boromam waaye waaye xës bi ni ma la ko waxee la waaye bokk nag ne waaw wala wala hmm. dañ naan euh, daawuda moom moo euh, bi mu demee ba xalaat yàlla hmm. def ko inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi hmm. fahkum bayna naas bil haqq waaw waaw yooyu yooyu àndu ànduñu ah. jote wuñu loolu meneen mbir la waaw dëgg la waaw kay waaw kay sax jërëjëf salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi def maa ngi sant yàlla. alhamdulilah alhamdulilah. dama ne. waaw man damay laaj euh, jullit. Hmm. ndax dagan na ci moom mu bind euh, kenn ci ahlu kitaab mu bind ko boor su fekkee dafa nekk ci di liggéey ci Ndakaaru. daal euh, këram jegewuñu ko. Hmm. comme ni ko xamee daal. mu jëlee ko mu di koy toggal. waaw mu di koy toggal. waaw loolu dagan na. ah dagan na waaw ah, dara nekk ci. ah su fekkee ni dem na ba ci biir nag. Hmm. moom suñu jigéen di waxante woon daf la waxoon ni. Hmm. Eh, eh, ñamu jullit rek laay lay toggal. Hmm. su fekkee dem nga ba ci biir muy togg ñam boo xam ne kii dëppoo la li nga xam ne si moom nga soxla la. ndax su boobaa foog ko xamul nga lekk ko. xam nga ñoom ñoom. waaw dañ leen tuddee ahlul kitaab. waaw ahlul kitaab. waaw alquran daf ne seeni ñam xillun. waaw seeni ñam dagan kon amul lu ñuy toggal lu mooy du ñu indi lu mbaam mbaam. bu fekkee dañuy togg mbaam yàpp mbaam te yow xamaloo ko. ah déedéet mu nëbb la ko encore. Ah. te di ngeen di waxati war na ko waxoon. mu nëbb la ko nga lekk. waaw nga lekk doo am bakkaar. yow doo am bakkaar déedéet yëgoo ko. waaw yëguloo ko waaw. Hmm. Euh, deuxièmement. kii hmm. su fekkee ne jullit la. Hmm. te ñu war nañu moom jullit la. mais du julli mukk. Ah, ndax dagan na lekk ak moom wala. la war a ne jullit la comme du julli. mbaa moom dafay jullit. dina jàng alxuraan am jàng na alxuraan trop sax. mais moom. pour mu sëgg daal di julli mooy problème bi. loolu ma ne. waaw yonent bi def na. waaw al farq alladi baynana wa baynahum as-salaat. mu ne li ñu teqale yéefar yi mooy julli. kon ku julliwul moom sharia du ko mën a teg ab jullit. ak lu mën a jàng nag. xam nga keneen ku nekkul jullit mën naa jël téere bi jàng ba fer di ko jàng. julli daal day julli rek. waaw waaw war na nekk julli. waaw su fekkee ne rek la su fekkee ne moom dafay moom jox na boppam ne gëm na ashhadu an laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah waaw loolu gëm na ko. wax wax na ko ci. wax na ko nga di koy dégg. wax na ko te gëm na ko. waaw te gëm na ko. Mhm. mais daal moom dafay wax ne daal julli moom fàyyi na ko daal. Mhm. waaw mais moom du ñu ko considéré boppam mooy julli. waaw kon kon jullit bu dëng la. waaw jullit bu dëng daal. waaw dëng la dañ ko waxee. dañ ko waar xamal ko dafa xamut. waaw waaye dama lay wax dama lay laaj. <laughs> ndax ndax lekk ak moom dagal naa lu dagal. lekk lekk ak moom lekk ak moom. waaw ah waaw. ah ab yéefar sax mën ngaa bokk moom lekk waxuma laaj koo xam ne da ngaa wax ne jullit la. waaw kon kenn mën ngaa lekk ak moom. Mhm. kon jërëjëf. waaw ok jërëjëf. allo. allo naam asalaamaaleykum man de dama bëggoon laajte hmm. ban waxtu la jigéen mën a bañ a muuru maanaam ndax bu nekkee ci këram hmm. euh, muur que ni foofu daal mu ci biir këram bu ko neexee mu dindi muuraayam hmm. sol lu oyof rek nekk ci biir këram waaw ndax mën na nekkal bi waaw bu nekkee ci bu nekkee ci biir njabootam diggante jëkkëram ak ci doomam mën naa mën naa dindi muuraay bi métti boobu la. waaw loolu lay def. ndax dañuy wax naan boo muuree ko da rey malaaka ak yooyu. waaw muuree ko boo defee bopp yi noonu. waaw ndax bopp bi awra la. waaw kon nag kon malaaka ba waaye boo ko defee sa biir kër daal dara waaw biir kër gi daal bu fekkee njaboot gi rek la waaw ko ci armante rek la waaw naa mën naa dindi ay ay muuraayam yi waaw waaw na mm, waaw waaw waaw bu ci beneen góor raxee rek koo xam ne ko ci armante rek dafa war a sàng ak yaramam jërëjëf mm-hmm. waaw salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah Baye waaw jërëjëf Martin man de dafa am ñetti laaj ci la bëgg a laaj waaw bismillah benn bi sama baay. Hmm. am koy fekk wirdikat la. am koy fekk muy wirdu mu wàcc liggéey. ne hmm. ko asalaamaaleykum. Hmm. mu fay ma comme suñuy baay ñu fee. mbir mi daf may naqari. ñu yorante ci lu yàgg. ne ko fay ba muy fay. foog naa ne day gën a jëkkal wirdu ba. ndax yow dañ ko santaane. te la muy def yonent bi def ko laaj jooju laay laaj nga àttee ñu si ñaareel bi. dama gis ay jullit. ah ne ne xaar boobu lañ ko fàtte. waaw waaw euh, xam nga lu njëkk li. Mm-hmm. ndax la ñuy def yeneen bi defoon na ko defu ko. Mm-hmm. loolu dafay gudd. wa ala kulli xaal yi ak lu mu lu mu doon mën a def daal. Mm-hmm. Euh, comme euh, comme bi ñu tëj julli. su ne asalaamaaleykum soo ne asalaamaaleykum rek li ko waroon mooy mu ne wa aleykum salaam. te yem ci nag am naa toog nag naan ko sekk gaay ak bee ñan loolu nag bokk ci asalaamaaleykum daal mën na laa wax wa aleykum salaam. te dellu ci la mu nekkoon su ko defut dafa xamut bàyyi na li war rek loolu la waaw wéyal ci benn ñaareel bi hmm. dama gis ay jàng ñu hmm. tuddee ko mawlidu rasulillah hmm. ñu ko doon def sa Louga wane ko télévision gis que ñu parrainé ko maanaam présidé ko koo xam ne ab nitu nasaraan waa ahlul kitaab mbir boobu jaaxal ma lool parce que jàng yi ñu yi présidé ko diw te kooku di waa ahlul kitaab muy nitu nasaraan te gëmmul Mm. dina ci islam mbir mi jaaxal ma lool. Mm. loolu dinaa ko mm. xam nga man nag mbirum jàmbur. waaw daanaka dama ci bëgg dugg. su fekkoon muy mbir mu la concerné nga xam ne ci sa diine la yow. waaye mbiram ay jàmbur la def na ko nii def na ko nii boo ci duggee daanaka yaa ngay tooñ xam nga tooñ baaxut. loolu moo tax dama ci sawar. bàyyi jërëjëf yàlla la yàlla fay. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw El Hadj Moustapha mhm. man de dafa am benn laaj rek moo bëggoon a laaj su ma joxe sama tur nag parce que am ay noon moo tax waaw eh, ñëpp am noonu ko amut noonu rek baaxuloo damaa takkoon ay jabar mm. léegi ñuy sëy di sëy di sëy dem ba ci digg ba mm. léegi ndaw si jékki-jékki xëy benn gis rek mm. daal di ne moom daal bëggatul doyal na mm-hmm. léegi nag moom mu ñëw toog bi mu ñëwee toog léegi papaam ma dem ci papaam hmm. léegi ma waxtaanee ak papaam hmm. papaam daan na ko même boo doon delluwaat sax doo bokk teeg yaayam kër hmm. léegi ma ne ko bon comme noonu la demee man tam maa ngi dem toog ñoo toog tuuti ñu indil ma convocation mu yóbbu ma tribunal léegi nag biñu demee ma waxtaan ak juge bi ma ne ko nag man mayu ma baat tey mayu ma baat ëllëg tey laa gën a bëgg sama jabar parce que xale la te fii tolloo gu ma fu ma amee ba ñàkk daal ma waxaat la même chose ma ne ko daal mayuma tey baat mayuma baat ëllëg parce que a jabar laa ko gën a bëgg mm. ma dem toog ab diir mm. léegi ñoom ñu jaar si ginnaaw daal dem a ba tribunal sa sëy bi taman mayuma baat laa doon laaj nag sariya lan la ci wax xam nga bu fekkoon ne balaa nga àgg foofu nga laajoon mm. kon doo fa agsi waaw jigéen daal bu toogee ba ne doyal naa seetuma da nga koy wëcc boo ko defoon da ngay daal di nopp waaye nag eh, wax ji nga wax ne man wax ji nga wax ne man amaguma bay ñàkk looloo taxoon nga war a bay ndax amagoo bay ñàkk nga bàyyi rek comme ku amagul bay ñàkk da ngay may ca saasa nga noppalu waaye li nga sëy contrat la contrat ñaari parti ñoo ko signé waxtu wu ci kenn ku génnee sëy duutam njaam bu kenn ki ne sëyatuma munoo fexe ba am jabar mu ngi mel ne yow boo ne dencatoo kenn na laa ba nga ko kon nag bi mu ne moom sëyatul booba nga ko war a ne bàyyi bi nga ko bàyyiwul nag léegi ni ko tribunal def bul yaakaar ne tasul tas na parce que ñaar la da fase wala ñu fase waral la yow te yoon moo tas sëj sëy ndax ndaw saane bëgg tut mën a tut yoon a ko tas kon kay tas na bu jàgg kooku fasam tribunal am lu ma laaj lu ma doon laaj te mu jaaxal ma lool mhm. parce que fii ci dëkk bi nit ñi dañuy gis ñaan ñu bëggante mhm. balaa nga takk jabar ñu en général naan da ngay seet ndax jig na la wala jig la daal mhm. mu nekk lu ma jaaxal ah waaw jéggi la wala jéggi la boo ko mënee xam koo xam ah dara a xam nag. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que dañ koy seetlu moo tax quoi. waaw dañ koy seetlu. waaw waaw charia li mooy listixaar listixaar boobu ak julli la ak ñaan rek boo ko xasee def rek dañ ciy dal dugg dugg waaye jig na maag jig ma nag yooyu nag suñuy suñuy mbir la boo ko mënee xam de baax waaye xam gi yombul nag. Mm-hmm. waaw. naam. waaw ah. hmm. naam. dafa am lu ñu doon gënante. suñu morom. dafa am hmm. ay baat yu gàtt la. Hmm. Eh, dañu doon boo xam ne yàlla mën na la ko jégal ak tooñ boo xam ne yàlla du la ko jégal. koy ñu maanaam. léegi nga doxaan jabari jàmbur daal. léegi ñu woon ko boo ko doxaan jabari jàmbur. tooñ ki nga doxaan jabaram moom moo la mën a jégal waaye yow. boobu yàlla du la ko jéggal. ñu ko werante woon ko ne man moom dinaa mi ngi wax ni yow yaay nekk dernier auditeur ci téléphone kër yi. waaw ñi la wax day ne loolu daanaka boo seet ne wax nañu dëgg ndax xàqu xàqu jàmbur xàqu nit borom moo lay mën a baal ak àq sa diggante sa borom ne wala sa borom di baal yàlla nag dafa nekk buur bu baax nit ki dafa am xàqu jàmbur te jaamur boobu baal ko ko bu jaamu yàlla ba yàlla gërëm ko yàlla ci baaxam bu tuubee rëccu dellu gannaaw jaamu yàlla ba yàlla gërëm ko yàlla ci baaxam mën naa jël xaqu jaambur yooya moom yàlla mu fayal la ko yàlla mën naa jël euh, ci magasin ya fayal la xaqu jaambur waaye bu loolu amut moom xaqu jaambur jaambur ba rek moo la ko mën a baal wala danga ko ko fay xaqal sa diggante borom nag sa borom moom euh, ma mën na la ko jégal xam nga tooñ yàlla moo gën a moo a yomb moo gën a simple tooñ nit ndax yàlla dafa baax nit nag dafa soxor moom loolu moo tax wala waalam waaw kon mbokk yi ñuy déglu eh, ñu di tàggu ba beneen alxames incha allahu ci waxtu bi déjà yu ci machine bi Babacar Niang Mamadou Moustapha Ndaw ci micro bi ak Moustapha Gueye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu te diina wér واه فكر مام دي خم نغ مان افري طريق موم ماسوم ما شي مانا واخ دارا دارا دارا دارا شي اي لي بوبليك ولا اي راديو كيب كو خم ني دال لي غي لاج دفا لنكو اك طريق الشريعه بو واخي رك لي ما خم واخ كو تي جاز لا يجوس دال تي الشريعه ولكن لاج لو ما تي خم ان شاء الله دنا لك واخ سو فيكي نك شي اي طريق غي دغو طريق بنك en tout cas du wax bu nekk it tariqa yu bëri dee ci Sénégal am nañu ko fi représenté koñ bu ne am na ko fi représenté benn tariqa ci tariqa yooyu day dem ci ñooñu su demee laaj leen loola ñoom ñoo koy xamal ndax mën naa ñàkk ak mënut a ñàkk buy am ak bu ci gën ak buñ gën ak ban lañ ko tànnal ak loolu daal seen mbir la xam nga nit ki wax ci lu ne dafa am loo xam ne da nga koy wëcceelal seen i borom moo gën wala waa la. waaw xam naa rek ñu leen am na sax tariqa doy na ci diine wala yu demee noonu ñu fàttali rek ne masala yi jaru tudd tur yi jaru ñuy tudd naan tariqa bi wala baa wala ngay laaj misaal am na fi laaj bu ñu amoon waa ji di wax naan sayib diw bi lu ngeen ci xam du jar tudd tur yeeg yooyu masala bi rek lañ soxla ndax du def ci laaj bi tontu bi dara kon xaaji Moustapha bismillah kii ba tey Cheikh Ndiaye mooy continuer mu ne bu fekkee ne nit dafa doon jàpp mu sol mbubb moo xam ne dafa am sobe mu jàpp ba pare nag Fokamnen boube mimi solon be mwen japa mnen soube mwen soum meko dal li solan mwen boube mwen sep dal li juli mwen la juli mwen wakadan apak ou la desi. Waw waw, bou feke dou le soube sotoy soukabne tokal na awyara mwen de. Kondare ah, ne kouche. Mwen soube sotoy soukabne tokal awyara mwen mwen soube mwen mwen rakas biro boube yitam. Rek, yap mwen al di mwen bak nan mwen. Allah wane. Mbok mi lan la chizikanshor mwen e kiga kame defen sangou janawa. dafa dégg ne ndox mi taq ci kawam wala mi xas dal ci yaramam bu rotaatee ci ndab li mu doon sangoo sangu mi day yàqu muy laajte ndax loolu wér na wala déet. waaw bu fekkee ne ndox mi takk ci yaramam dafa tilim mu rotaat ci biir ndab li te bari te tilimal ko loola dafay yàq sangu mi waaye bu fekkee bariwut wala bu fekkee tilimut moom ndox moom la ndax danga dafa raxas ba pare yeneen raxasit yoo xam ne. Eh, kii ga kooku du soppi ndox ma xam nga lépp loo xam ne sobe la su néewee dugg ci ndabal njàpp wala ndabal kuy sangu te te néew ba soppiwu ko soppiwu ñetti meloom ya dañuy wax ne loola daggan na danañ ko sib nag bu fekkee ne am nañu meneen comme ni ko xalil indee wallahu ñetti melo yi yàlla ñetti melo yi mooy ndox mi bu xeet gi soppeekoo ma ngi naan ban wi beneen melokaan bi mooy couleur bi muy melokaan bi couleur ndox mi bu soppeekoo ngir lañ ca def beneen ba moo di ne melokaan wa waaw maanaa couleur bi la ak xet bi wala boo boo ko mosee am na lu muy saf xam nga am na ñoo xam ne bu ñuy jàpp sax dañuy njëkk a guux benn guux ci ndox mi am na ñu koy def nag ci biddaa ñoom xamuñ lu tax fekk ñu koy def ñuy seet guubu ndox mi lana ci ne lan lay saf bu saful dara après ñu tuur ko kon nag caf koog ndox mi couleur ndox mi muy eh, melokan ba ak xetuk ndox mi muy ban wi ñetti melokan yoy bu ko rek mom ndox nekkatul mutlaq euh, man na lab nak ci bopum ñu jëfëndiko ko ci aada waye du lab nak ñu koy jëfëndiko ci xeetu jaamu yalla yi su mané aada moy lu melni ni togg ak naan ndax ndox mo def cepp am cepp nga ci def mu xéñ nga day neex lool bu sa dénga diko naan waye nak du mëna japp ndax xet ga dafa ko melokan wi Mena naa soppeeku ko waaye mën nga kaa toggee mën nga koo naan moo tax fuqaaw yi ne yustaamalu wala yustaamalu fi l ibaadaat waaw nah, wallahu alam ki ba mom moom Cheikh Ndiaye mi dina di laaj mu ne nit a ngi ni koo xam ne daf doon julli ba assi ci place yi sujjóot bi mu sujjóotee wala mu sabal subhanallah wala subhana rabbil ala mom mu naan allahuma atini nangam wala allahuma agfir di di ñaan muy laaj nag ndax julli ga dana baax wala du baax. waaw euh, julli ga dana baax xam nga fuqaaw yi dañoo séddale julli am ci bërëb bu ñuy ñaan am ci bërëb bu ñuy sabbal am ci bërëb bu ñuy màggal yàlla kabar am ci bërëb boo xam ne dañ ciy jàng alquran sujjóot malikiya ñoom lañu gën a bëgg euh, ñoom malikiya lañu gën a bëgg ci sujjóot mooy nga di fa sabbal waaye yeneen ngër yi yeneen mën nga fay ñaan. ndax yonent bi nee ab jaam waxtu wii muy gën a jege moom mooy waxtu wi muy sujjoot kon nag eh, sujjoot dafa ñaan dara nekku ci wallahu alam kon mbokk yi xanaa ñu tàggu leen fii ba beneen eh, alxames ci waxtu wi eh, di leen tàggu di leen ñaanal jàmm yaan yàlla def ci mu dégg topp def ko ci yéen ñu ngi leen di gërëm di gërëm oustaz Babacar Niang mi nekk fii ak ñun ci micro bi ak oustaz Moustapha Ndaw ak DG yu mu nekkoon ci machine bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mais gépp garab gi yi nekk aljanna mhm. dañoo nekkul ci àddina ñami aljanna ya nekkuñu fii waaye nag mhm. euh, gis nga yàlla day euh, mbirum euh, aljanna mbir mu nekkoon ci àddina mu xéewal ko nit ci mu xaw a ak moom xam nga lim lim rek mhm. loolu la lim xam rek loolu lay bëgg. dëgg la su ko defee. dëgg la auto bii mutashabihan. waaw kay dañ leen koy indil mu niru mu ah, niru ko. Ah, ah. waaye nag pour wax nag ne mooy fuddan. ah jooju wax nag saxut nag. dëgg dëgg daal jàppale nañ ne moom mooy fuddan. ah bañ naan fuddanu boo euh, boo deewaale moom doo doo lakk ak yooyu. waaw man daal dégg naa loolu. ah loolu nag ëpp na. ah doy na waar de. beneen bi nag mooy yére ñoom yére yi ñu soloon. Hmm. xam nga jamono jooju amul ay rab yëre amul ay usine. ma doon laajte ndax yére yooyu yére leer la ci zahir wala ay yére comme yi ñuy nii la hmm, hmm. waaw waaw. waaw euh, mën naa am sax nekkutoon ay yére. waaw man naa am nekkutoon ay yére. ndax waxin la daal. waaw waaw. Euh, waaye yàlla. nag ba mu leen bindee. ba mu bindee Adama ak Hawa. Mhm. daf leen a joxoon. Mhm. loo xam ne dana suturaal seen awra. dëgg la ba malaaka yi duñ ko gis. dëgg la ñoom itam kenn du gis sa awra yi morom. ci ndeneer gi. dëgg la léegi nag ba ñu defee ak mooy yàlla. Mhm. booba na la sutura soosu naaw. ku ci nekk xool rek. dal di gis sa euh, euh, boppam. Ah, waaw kay. waaw riche yooyu nag. Uh-huh. nga xam ne mooy riche yi ñu leen joxoon nga xam ne xëy na ay dunq la xëy na ay yére la. Uh-huh. xam nga yàlla bi nga xam ne moo sos aadama ci ñàkk. Hmm. Euh, tabax ko ci suuf rek mu ñëw. Hmm. kooku lottut ci bu usine amutit mu daal di sos. mbubb jox ko ko. dëgg la moo tax lottu ca. dëgg la kon nag ala kulli xaal. Uh-huh. comme détails yi wane ne ci usine laag bu mu weex laag malikaan laag basin la. comme ah. loolu amut. ci kitaab mu ci sunna. dëgg la kon nan yem ci li yàlla wax rek. dëgg la mais am na lu doon suturaale seen awra.